Assalamualaikum suñu mbokk internet yu Texcom TV Bamba ñoo ngi leen di jaajëfal sa su nek si tewlu bi nga xamne yeena ñukoy tewlu koy teewlu boobu ba léegi tey nag ñoo ngi fii si Mbour si centre commercial Serigne Mbacke soxnolo set ci won fi ben tailleur mu nek xalé bu xarañ bu mën lol lol walum ñaw ba pare don don muy baba. borom héritage couture ànd ci ak équipe bu dynamique bu mën li def mu nekk ka nga xamante ne luy ñawu góor wala ñawu jigéen lépp loo leen si bëgg rek daw leen gaaw si borom héritage couture baaba robe taille basse marinière obazanzo lu ngeen ci bëgg rek dem leen seeti borom héritage couture muy baaba kon na duñ def lu dul ànd ak suñ caméraman bi Serigne xaadim doxantu ba si biir rek xool baaba lan lañ ñuy tegal si taabul bi jërëjëf asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñoo ngi nii taxaw ak Baba borom héritage couture waa kër Serigne Bassirou kon nag xanaa dañuy jël kàddu gi rek jox ko moom mu présenté wu si turu waa héritage couture salaamaaleykum sëñ bi ñoo ngi lay ziar. maaleykum salaam soxna si maa ngi leen di bu baax ak seen site bu seen site bu am seen site bi nga xam ne ku ko xool di taal bi Sëriñ rek da ciy bëgg a dugg ñu ngi ciy santaat baax di ci kontaan lool di ci am mbégte nag ndax ñun moom lu bokk ci Sëriñ rek. daf ñuy neex lool ba daf ñuy tax ñu def ci luñu luñu lu mën ak luñu mënul kon nak ñu ci santat baax di leen gërëm yeen nit nga xamne ne euh, suñu borom ni la ko dogalé waji mom moom euh, sama mbokum talibé la ñu bok suñu tubaab man ak mom ndax xam naa fi lañ xamanté rek yagul dara wa dañuy di doli santat yalla di gërëm euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam di santat sëñ Tuubaa ndax ñun amuñu kudul dul sëñ motax moo site bi bu ñëwé fi sama place laaj ma rek ci saas dama daal joxe sama kàddu ne man day bëgg na nga ñëk ma défal interview ci ci li nga xamanté ni mo ngi fi ñëw muy centre bi bëgguma kenn di ko ma koy def mu ne ma dinaa la ko nangul ndax yow ñoo bokk sëñ Tuubaa kon nag moom maa koy santaat bu baax dinañ santaat yéen ñëpp ak yow mi ànd ak moom waaw euh, li ma laaj nag question boo ma laaj ci métier mi ak foo ma laaj mën naa la faa tontu ndax métier bi cee juddu li li gars yi ci xaalisu làmb lañ ma ngéntee man ci xaalis ñoo lañ ma ngéntee kon mën naa ci lu sori parce que li ma ci xam sori na xaj xaj na at yi at yi bariwul lool waaye mën naa ne euh, Ati bari wul waye jëm ji ak xel mi romu na sax ati kon ñu ngi santal sëñ Tuubaa bu baax nak lu ma am nak ginaaw yalla sama liggey ndey la Asi ak sama barke bay euh, malik Bow euh, di ci dole sama sëriñ bu baax bi nga xamanteni ni ginaaw yalla lu ma am mom kon ma ngi santal sëriñ Tuubaa bu baax baax. kañ nga taxawal bërëb bi ni héritage couture. héritage couture euh, euh man ma ngi ma ngi ko taxawal depuis. 2012 la beru bima ma 2012 2012 taxawal héritage culture te xam kenn waruma ci ëppale ndax li nga don ak li nga judd euh, nit waru la ci mëna a kenn waru la ko mëna a wala kenn waru la ci mëna jaay dara noonu la dox ba taxawal héritage culture parce que sama papa da daan ñaw sama turandoo di ñaw sama rak yaay di ñaw kon man ci ñaw la judd tayit xaaliss xaalis ñoo la mu ngénte waaw. bëggoon nañoo xam ba xam mbuur nga dëkk wala. waaw man nga juddoo yaro mbuur la juddoo mbuur la yaro sama bay mbur la jodo fi la yaro sama nday ji ma jur mbur la jodo mbur la yaro man doomu mbur la naka ngay dundé événement tabaski 2022. waaw événement tabaski 2022 comme événement fi jall rek comme événement fi jall rek événement ñëwé ñu na ci ñun waaw way nak 2022 bi ñu ci santé Serigne Touba bu baax ta xamni liñ ci jotto mos rek lu ci yaay lu ci way mos rek nak santé Serigne Touba waaw man mom lu ma ci mosul Serigne Touba la kay santé waaw. clientèle yi ñoo ngi ñëw bu baaxa baax. waaw ñu ngi sant clientèle ñu ngi sant waaw lele. man damay ñew lepp damay ñew lepp man am bàyyiwuma dara ñaw ab lu ma ci bayyi amul lenn lu ma ci bayyi lepp lu ma nit andil na ma ñaw bi nangam la dama koy ñaw ndimbal lool mom amna ko waaw xaj na xale la nak lool sax waye ndimbal lool mom suñu borom defal na ma ko ñaw bi mom bo bëgge dégg-dégg aw ma ci xaaj ak sen lu ma neex la ci laal te lu ci laal dañ nan waaw waaw lool mom mën ko assuré sama bopp. suñu déggee ci dégg-dégg dang ka doon ba paré mu neeku doon ci yow. waaw dama ko doon ci sama wajur Don ko ci sama magu wajur, kiko jangal metti ndax man sama baye kiko jangal metti jangul jangul jàngul ñaw sama baye kiko jangal metti jangul jàngul ñaw jàngewu ko fenn xaritam la den lon ci beurep rek ñuy ñamanta ñom ñaar moom defari dal ki di ki di ñaw yalla dogal mu dem ba lol ci la meune metti bam ci place bopam suñu borom dogal sama baye dem di jang ci magam ba mën fa metti non lañ non la ñaw diggee ci ñun ma ñaw diggul ci ñun leneen lu dul waaw. mo nek tendance bi 2022. waaw tabaski bi mom tay baas de mom la ëpp ma ñaw ci tabaski bi waaw tay baas mom la ëpp ma liggéey waaw mom la ëpp ma liggéey ak yére goor yi filaafil yi ak jazner waaw loolu lañu loolu lañ dal lañ fi liggéey mom wax deug yalla waaw lan ngay wax ñi nga xamantene ni ñom nga bokkal liggéey bi fi ci biir place waaw ñi ma bokkal liggéey bi ci biir place bi ñen ñi samay rak lañ ñen ñi samay jarbaat ñen ñi samay frère lañ ñen ñi aussi samay rak lañ ci walu dret euh ñi nga xamante ne nii ñoom laa bokkal ci walu dret ak ñi ma bokkal ci wàllu deret kenn mënu leen xamé ak man parce que ñom danaka man ak ñom ñom masse rek mageewu ma leen dara waaye suñu borom jël euh, njit def ko ci sen kanam mageewu ma ci kenn dara na xalé la comme ñom waaw kon nak ma ngi santaat serigne bu baax baax waaw rek sant rek. japp nga ne di nga paré bala tabaski bi ndax tabaski bi presque ci dess des waaw inshallah ci carton suñu borom am yakane dina paré pare samay ñaw jox ko dem juri ji sama kër ndax loolu la bëgg. lay wax clientèle yi. waaw clientèle clientèle dañ leen ñaanal yalla ñom li ñu jënd ci rek di ko ci ñun. suñu borom bu dogalee ñu am lu ñu jëndee tissu di ko ànd ñun lool loolu la ñuy ñaan yàlla rek waaw ñu santaat na. ku soxla woon waa héritage couture fan la leen di fekk ak ci ban numéro téléphone la leen di jotee. waaw mais héritage couture adresse am neex na am parce que héritage couture fi mu nekk actuellement euh, lieu boo xamante ne lii ñëpp ko xam muy centre centre commercial Serigne Mbacke Soxna Lo mu ngi nekk euh, ville Escale en face crédit mutuel la nekk boo yéegee ci kaw boo yéegee ci porte d'entrée bi génne marché. Euh, boo yéegee rek di nga jot baaba di nga jot héritage culture waaw. numéro. Euh, mën nga ko jotee ci numéro 77 407 06 44 wala 76 325 36 39. la moo nekkoon sa mot de la fin. waaw santaat yàlla rek santaat yàlla ta xam ni sunu borom ni la ko dogalee woon dañ santaat rek métier mi moom lu ci waay am na ko sant yàlla lu ci waay forit nako ko sant sunu borom te xam ne loolu la ko ci man sama baay dund na ba faatu euh, te lekkul sama ñaari junni lekkul sama ñaari junni benn yoon ci métier mi ndax ku gaañu 2000 ak léegi mi ngi bu a yàgg lekkul sama ñaare junni li ma ciy xaw a lool daal moo di sama waajur lekkul sama xaalis si ñaw naa ne bu doon dund dootu ko def ci àdduna day toog di seetaan rek waaw loolu daal balay lay mooy li nga xamante ni moo nekk lu ma marqué ci àdduna ginnaaw ginnaaw ginnaaw wàllu ndey ginnaaw wàllu baay ginnaaw wàllu ñu may liggéeyandool manam téré ñak wajur ci métier bi moo ma ndax bu ma ko amoon ci wéetir bi heure bi dinaa romb fi ma tollu waaw te maa ngi sant bu baax nak wax deug yalla waaw. xam baba mom naka la tarbiyo ñaw bi ndax ka jang wala. wa baba ni mu tarbiyo ñaw bi yomb na parce que baba magu papam day ñaw papam di ñaw man mi taxaw di wax ak yeen may turandoom te damay ñaw moom it ko jang ko kon lu mu donu la te lo donu mu dëgër parce que lo donu rek fay boole kook nag mu tarbiyu patron ba patron gërëm ko lool lool muy jibi fay moo ko jàngal métier mu tarbiyu ko ba mu gërëm ko pap man mii nga xam ne maay papaam bokk ak papaam ndey man it gërëm naa ko lool fonk naa ko it ci métier mi waaw don la nag ci moom jàng na ko waaye don la ci moom waaw bu ngeen xoolee li muy def rek xam ne don la macha allah yàlla na ko yàlla lafal cat waaw. doom bi fi mu jógee mooy ci magu papaam kooku kenn jàngalu ko métier xam nga bu jëkk à l'époque naar yi dañ daan ne ubbi atelier di jaay tissu ci njaayum tissu moom la rek daal di ci jënd benn machine am teg ko ñu di ko wax benn mandalos mu teg ko di ci liggéey nekk ci ba mu yàgg mu dem dem dem ba naar ba tëj mu dem këram ubbi fab atelier jël papay baaba di ko jàngal ñëw fekk na boobu am na fa ñeneen ñu fa nekkoon ñii def nañ fa ñaari at ñii def fa ñetti at bi ba bu ñëwee juroom benn do nga la fa def commencé liggéey ñu naan xëy lim bokk ak mom baye motax mu jangal ko métier kon don ba néwon ci koko ñew na ci mom ñu necca necca necca ne pa ba mu yàgg mu ber ko ba mu koy berit fekk na amul âge yu beru mu ne ko déedéet mataguma beru mu ne ko il faut nga beru parce que man nga sa métier ba mu ko béré mu ubi atelier tok commencé di liggéey yalla wuy ci ko sha allah ko wax bir mbour nak xamna pambo ñu diko wax ngala ko ku wax biir mbuur xam na ko muy ñawal naar yi di ñawal hôtel yéeg ñëpp yàlla wuy si ko ci liggéey kon bu baaba ba wëlbatikoo man mu papaam moo ma jàngal métier berma ma tukki mu wëlbatiku tudde ma baaba kon baaba bu ñëwee ne bu dee def lii kon dañuy xam ne doom la bu mu doon turandoom day ñaw papam di ñaw magi papaam di ñaw kon loolu don bu mu doon la macha allah te mu jàng ko it ñi jaayam it la mu nga ba itali di ñaw waaw ñi jaayam di ñaw bok ak yaayam nday ak baye don tailleur bu mag ci Italie xam ko muy mod wow, waaw lu ne mu ngi koy def foofu Italie allah kon famille ñaw da lañ mëna wax waaw te nak ñi ñaw ñeppit it macha allah daa ñëw rek dajale lepp téye ko ci loxom waaw. mi ñoo ngi lay ziar. ñu ngi ziar xona si ñu sant ba man la bara saw di wax ki eh, manam xaritu Baba saw ñoo bok ben atelier bu ñu liggé muy sama patron du sama prasbi. nek ci place bi. di liggéeyandoo ku ci nekk ñëpp nag bu ñu xëyee ñëpp fi lañ jëm si di wut lu ñu am waaw ñu nekk nekk ñu rafet ñu ñëpp ñu ne xale yi daanaka maanaam boo xoolee magasa du fi am daanaka ay frère la ñu ñëpp ñëpp presque ñoo bokk di liggéey ba ki ci gën a ndaw ku ci nekk da ngay jox ki la mag ñu bokk di liggéey ñu ñëpp parce que ndax ndaxte àdduna amuñ lu dul suñu métier mi lañ am daal waaw lu koy amélioré rek la ñuy wër saa su lu koy yokk saa su ne la ñuy rek waaw dañ di ay ndaw nag bëgg dara waaw motax sa ñu xey ñu xey jappalante ñu xey ci place bi place bi nak place place Baba saw la moy moko ibi place am la mak mom ñoo bokkoon fiñ neewon newoon ben atelier bi ñu ñu ñoo ibi fi nek ci liggey suma neew ba delu delluwaat ci terre te yalla ak moma tax ndax bàyyi won na terre découragé woon naa complètement baye terre ne ci lenen waaw mais daf ma japp dama ñewatal ñu liggey ñewatal ñu liggey bama ñewat amat espoir di liggey ci mom c'est grâce à lui waaw liñ manti man ba delu ci terre c'est grâce à lui mom la dañ ko koy santé ndax soxru ci dal manam soxoru ñu ngi mi ngi ñuy yéene xam-xamam tamit yéene ñu alalam daal waaw tamit booy tamit noonu la ñuy dundee ñoom it yéene nañ dooleem yéene nañ seen doole tamit ci liggéey bi di liggéey bu ñu xëyee li leen war ñu ngi koy def liggéey ba heure wàcc jot ñu wàcc ci loolu lañ nekk wax dëgg fa loolu lañ xam waaw di ñaan yàlla xanaa di ñaan rek yàlla suñu borom doolu ñu sutura te ñëpp guddal fan yi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngay dundee événement tabaski 2022 sant yàlla nag sant yàlla bu baax alhamdulilah ñu ngi sant métti na méttiwul waaw ndax daanaka miin nañ liggéey bi daal miin nañ ko waaw ñaw moom macha allah ñu ngi ñëw te it bu ñëwee moom it moom mi patron bi li mu mënti jëlit bu ko daggee teg ko ñu xale yi ñaw ko ñëpp ñaw xale yi lépp dara du fi tane fal wax dëgg fa yàlla lu mu fanaanee dagg bu xëyee xale yi ñaw lépp waaw moo tax ma ne a à chaque fois ma may gërëmaat xale yi saa ndax li ñu naan li sëñ mu taxaat naan ku ñeme rek dañ laa déy xale yi dañ leen di gërëm di leen sant saa su ne waaw ay jàmbaar lañ lool lool lu leen waaye mën di ko lu mu mën a jàppale xale yi rek mu ko mu dolli di ko di leen jàppalaat parce que ëllëg xale yi ñooy yor réew mi tey jii ndax moom tey jii daanaka bu demee ba tey jii ba toll xale yi ba toll âge benn âge bi xale yi ñoo ñëw taxaw toog liggéey waaw ndax na ñu fi jiitu woon ne fi di liggéey te danañ ba toll nañ ci troisième tey jii tey jii xale yi ñooy ñëwaat tey ji gérer loolu nañ leen jàppale ñu gën leen a dooleel ci barki yonent bi loolu rek laay ñaan yàlla waaw. ñoo ngi lay ziar bu baax. salaamaaleykum incha allah maa ngi tudd Ibrahima sant Dieng di di di sante yalla bu baax te di rafetu li bu baax baax ndax xeyna maam suñu nekkene ci place bi maam xëy na du mënuñoo wax mais fook fook ñu gënal nek suñu xol ndax suñu patron bu ñu nekk ci atelier fi man dip ba may nekk tout tank la nekk ak mom ba yoona yalla tay jini problème bu ñu am mu ñu koy mu ngi mu tax mu ngi ñu see taxaw tey jii maam def ñu moroom tamit ñuy kaf di foo di ree parfois ma koy fekk si table sama dagg ma koy mbalagante ak moom amaana tey jii nii mu mënoon naa ne moom mu ne mën mën naa wax ni moom mbala ak ñun wàccee boppam suufee te am na amaana am na ñeneen ñoo xamante sax duñu duñu duñu duñu dund ñoom seen emprunté wax dëgg fa yàlla moom patron la boo xamante ni patron bu baax. boo xamante ne tey jii nii ku ñëw wax soxla moom dala si jàppale moom. tey jii ñun ñun ñun ñuy nekk si atelier bari na apprenti yu nekk si atelier bi fii nii man lu may engagé si ay ñaw rek kenn xamul nu mu toll amaana am na yeneen atelier yoo xamante ne patron yi may ñu ko seen apprenti kon tey jii moom suñu mayee loolu noonu maam bëgg bëgg ñu dafa bëgg ñu am dafa bëgg ñu am lu baax daal maanaam waaw te bëgguñu suñu benn morom rawuñu macha allah. maanaam yéene bi daal yi métier bi daal yéene nañu ko yéene goo xamante ni wallaahi ñun ñuy bu soñoon fii ku fi génn maam yow yaa koy raw moom sant bu baax ba ma nekkee tout tànk ba tey laa nekk ci moom moom ba pare maam di ma diggal lu baax jël ma yóbbu ma ba sëriñam ma moom mu njëkk a yóbbu tuuba yóbbu ma ba sëriñam ne toog sëriñ bi toog mu toog mu wax ko lu mu koy wax sëriñ bi keroog la ma tey maa ngi ñoo bokk sëriñ amaana tey jii comme defal na ma loo xamante ni maam su ma doon su ma doon daw junni at sax lu tax ma dab ko am du ko sant bu baax nag bu baax a baax a loolu la amoon daal daanaka daal xëy na mënuñoo wax daal mais dañuy jéemantu di wax ni rek mais maam lu mu ñu defal daal maam daal am maam kiiwul daal maam ak suñu tubaab xol yee fees <laughs> waaw na la de naka ngay dundee événement tabaski bi fii nii si biir héritage couture. événement bi nag xanaa comme comme comme kii rek nu ñu naan ndox du bàyyi yoonam saa bu ñëwee rek nu fu ñu ko jaarale fa lañ koy jaaral waaw dinañ ko liggéey si jàmm ak salaam teg benn ñaw du tar te kenn du ci am problème. inshallah rabbi kon nak eh, mbok internet ni ngeen ko gisee ñoo ngi ne taxaw ak ñen ci ñi nga xamantene ni ay soxna lay yi nga xamne ne ñoo ngi fii ci biir héritage couture xana duñu def rek jox kenn kàddu gi mom mu présenter wu rek salam ay soxna ci ñoo ngi lay jé alaykum salam ñu lay delloo ça va ñu sant yalla bu baax wa ki jaara la tuddu ki market ñoo bokk fu ñuy liggéey yere yu baba so ñaw ñokay koy waaw kon daal yéen yéen a passé si atelier bi daal. ñooy passé ñooy tapp pression yi ñooy collé lépp da ñoo koy def naka ngeen di dundee ak baaba ci bir atelier ah sant yàlla rek baaba Sow moom patron bu baax la ku neex nekkal la ba dëgg fa yàlla ndax jamono toll nii am na patron yoo xamante ne da ngay dem seen atelier indi say ñaw ñu ne doo ko fi ñawee moom da ngay encaissé ay ñaw boo ñëwee mu daggal la nga ñaw li nga am. dama ba pare événement bu ñëwee bu événement bu ñëwee bu enquête say ñëw ba pare moom xoolul li nga am moom daal li nga ko liggéeyal daal lay xool bu paree taxaw wax leen ku nekk lu ma lay jox ma jox la. ba dëgg fa yàlla moom baax na neex naa nekkal patron bu baax la mooy wàcc da lay may paas boo xëysee moo lay jëndal ndékki waaw loolu moom mun naa ko seede si moom ba dëgg fa yàlla. naka ngeen di dundee événement tabaski bi 2022. ah sant yàlla rek ñu liggéey ko rek comme chaque année ni ñu koy liggéeyee rek liggéey ko rek yére bu ñëw nga encaissé ko ñëw ko ba mu baax paase paqueté waaw borom client bu ñëwee mu kontaan loolu da nga ci am waaw. en tant jigéen da ngeen di fanaan fii wala. waa moom moom dama am jëkkër moom fanaanu ma ñaan ñi daal ñooy fanaan waaw ñoom daal ñooy fanaan. ñu fanaanee di collé renfort yooyu ba suba jot. sëg ñu ñibbi bu ñibbee tamit sangu ñëwaat moo ko tax événement bi jeexul moom kenn du noppalu événement bi tamit bu jeexee moom ku nekk mu ne lu ma waxal li ma lay jox mu jox la ko waaw baax na neex naa nekkaloo dëgg fa yàlla patron bu baax la moom dëgg fa yàlla boo yeewoo moo jox ndékki jox la paas boo encaissé say ñaw boo indee boo ko joxee mu daggal la ko li nga am dëgg fa loolu de moom moom mun naa koo seede si moom